presse. El Hadji Ahmed Aïdara. élection présidentielle yi jeexagul ba léegi ni la dee mardi taali maa wax li la tribune yéene kaay laaste en tout ni mi ku nañ wàllum ju ñaaj goo ah. ni ki am na ca orchestré ko maa la ko wax nee ah wàllum jaay doole kon la daal di def day forcing tax nag ba wàllum prestation donné serment gi kon dafa gagné élection présidentielle yi lée ndax daa am ñenn ñoo xam ne kon dañ ko caa jàppale day en complicité ak kan ne kon ñu ngi nekk ci nguur gi lé administration ba doomu Sampol Diasso ci yoo xam ne day nekkul ca fichier ba te tam jël nañu ay nit yu bare bari laa di leen inscrire ay électeur lañ bind leen ca audience soroñ ya Barthélémy Dias ne giñ naa ko sama loxo ci kaamil bi di tey réew Yeesu Krista la bible ne Macky Sall day fichier bi ah lu toll 14 379 ay électeurs def na leen 699 be teew code boobee amul ci benn collectivité locale nag laa la wax baax ci yemu ca ndaxte Lutolo nee na lu toll 180 000 électeurs yoo xam ne amul fenn daal dinañ leen dugal nag maanaam kon ca fichier ba te jàppal ni ci juróomi at yi ñu génn day waaw lu toll ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak benn la ñu wutal nag ay kayitu juddu ci ya ministre intérieur loo am te xoolal leen ma ca añam gee waaw Macky Sall nee na am na ba cent pour cent waaye bu ko neexee parce añam googee xar dañoo voté ganaar ya dañoo voté Le Quotidien yéene kay ne moom Barthélémy Dias day waaw nee na danañu porté na am googee ah, suba daal di waat maanaam prêté serment waaw laaste prestation de serment googee ne ah ndaw lu rëy ah. dama ne ndaw lu rëy lu toll fukki président ak juróom ñeent dix-neuf chef d'état waaw ak lu toll ñett ci ay premier ministre lu toll juróom fukk ak ñett kon ci ay délégation danañu dikk ca xew ma l'observateur ne Macky Sall kay a prestation de serment président googee remaniement ba defar na gouvernement direct info ne ministre yi bëree bëri day nelawatuñ maar day taali waaw waaw daw coow ne jàppal ni kay ci traitu éleveurs yi la ñu ne sàmmkat ya ak sëriñu dar yaax ya ak jaaykatu neen ya waaye traitu uudee tamit la ñu ne les cordonniers la sabab lu ni mel day waaw dama ne la ministre yi kay fi nekk ni lée ku ci nekk ngi bëgg a nekkaat ministre ñi masula ñam dañoo bëgg a ñam la mouvement ñin ñamaguñ ñëpp a ngi ci wutum xar fa fuufa gu tar di doomu séeréer yi bël Macky Sall siin la ñu ko ñu luge yekkee ko fuuta dama ne la am na ci benn directeur général boo xam ne day indi na fi sax benn xalif général eh way Samba foo romb ci sele ba yoon yi day ña fa sànni ay nen laa la wax xoolal ma circulation Dakar njaay jël jóob daa yi de déet yéen ndax oto yu ngand yëpp dugg nañ ca biir àll ba kon wuti ay ñaan eh ay ne en tout cas nekk ca kaw ga di béykat yi day waaw nee na mooy yéene kaay ne semaine bi waaw dana tar lool ci Macky Sall uh-huh. waaw waaw dama la prestation de serment ba bu ca paree day ma nga ca défilé 4 avril ba bu ca paree day sabu nag premier ministre bu ca paree gouvernement bu bees ewa eh Samba général Cheikh Sène gendarmerie nationale waaw moo général nee na gars yi pare nañ te gendarmerie danañu bëgg lool défilé nag ci kanamu njiitu réew mi ci kanamu télévision bi l'observateur ne feetuk indépendance bi waaw Khalifa Sall uh-huh. waaw Khalifa Sall liste ba ñi nga xam ne kon Macky Sall kon da leen a war a ci Vox Populi waaw ne aduna day du yàgg ba Khalifa Sall taxaw ci kanamu Macky Sall mi lee di ko ñaan dimbal naan ko baal ma te moo ni day Dakar Times nee na wàllu bi yorin gu bon bu doy waar moo am ca ministère éducation nationale ba lee nga xam ne Serigne Mbaye Thiam moo ko jiite dama la of na kay waaw bind nañ leen de parce que day juróom benn milliard la la la ilaha illallah ci ay milliards moo ni may la ilaha illallah 24 heures yéene kaa ne kon moom la ñuy jox béykat yi day ak matériel agricole waaw Birahim Seck ak waa nga xam ne kon moom la jox béykat yi na dama ne gi nga xam ne kon am na ca nag ak wàllum clientélisme politique boo bokkee ñoom parti rek jox la jiwu ak wàllum fraude yi mbirum njo njaaj xam ne kon am na ca ca yàlla enquête yéene kaa ne jogo waa jogo sonn nañ keroog bañ ne circon ba feeñ na fa ak ilmi nit gi ak lokoseen gi ba léegi nii la daal jogoo nga sonn lool xoolal ma société bi lée di GECO 2017 waaw lu tolloo 83 virgule 4 milliards la def chiffre d'affaires xam nga jox nguuru Sénégal juróomi milliards ak genn wàll daanaka source ané xoolal ma ca diwaanu France ke médicament garab yi nga xam ne kon moom la ñuy naan waaw am na lu tolloo juróom-ñeent fukk ak ñett 93 médicaments yoo xam ne kon dañ ko fay tere dee ak yoo xam ne kon dañ koo retiré ca marché ñett mi ngi fii ci ci Sénégal gi léegi waaye direction de la day waaw nee nañu la ca France du ci Sénégal neewul ne lu bon ca France kay rek daa bon ci Sénégal gi lu fa araam mën na fee dagan ba ci ay garab yu ñu war a naan <laughs> alaaji lii dee nga mel ni nag jamonoy xale ñin ay africain lañ caaxaan rayuñu microbe rayuñu boo paree ma ne la alaaji tëjal